Euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu euh, vraiment di sargal euh, sunu sunu sunu sunu jeunesse bi di sargal sunu diaspora bi di sargal tous les démocrates du Sénégal ndax tey bu président Macky Sall mujjee nag li tubaab naan jeter l'éponge maanaam nangu ne mënta def troisième mandat ndax constitution bi mayu ko ko dafa fekk mu am ñu amoon taxawaay bi war. muy fii ci Sénégal góor ñi jigéen ñi mais surtout not jeunesse ak diaspora bi euh, ñoom lay njëkk sargal ci maanaam jéego bi nga xam ne mooy première victoire bi nga xam ne am nañu ko euh, di aussi euh, vraiment féliciter aussi les journalistes parce que journalistes yi aussi indi nañ ci vraiment contribution bu am solo jàpp nañ leen ci sonal leen ci tëj ab ab télévision lëmm donc ñoom ñëpp vraiment lii aussi jéego bii nga xam ne tax na président Macky Sall bàyyi li mu bëggoon a def mooy troisième mandat bi euh, ñoom seen loxo ñoom ñëpp ñu ngi ci biir donc ñu ngi leen ci ndokkeel di leen sargal waaye nag yëf yi jeexul ndax euh, il faut que président Macky Sall aussi bàyyi ñëpp doon ay candidats maanaam candidature inclusive euh, ñëpp mën a bokk bu ko defee mu doon élection yoo xam ne sénégalais yi dinañ déglu programme yi tànn ki nga xam ne moom la bëgg mu jiite leen. Euh, war nañu aussi taxaw mobiliser pour que xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñu libérer leen ñoom ñëpp euh, et puis aussi président Macky Sall ñu indi ko ba mu mën a leeral euh, li nga xam ne mooy xale yi ñu jot a boom te fukk juróom benn ñàkk ci seen bakkan loolu commission d'enquête bi nga xam ne ne woon na ne dana ko teg moom la ñuy xaar très rapidement pour ñu wax ni xale yooyu ñana leen rey ak ñana santaane ñu rey leen ba noppi nag moom it mu ëlbateku jël ay disposition pour que ñu am élection yu mucc ay élection yu transparente kon nag maa ngi ndokkale tous les démocrates voilà tous ceux qui ont résisté ba ñu indi ndam lii waaye jeexagul tey la ñu war a gën a mobiliser wu ni ma ko waxee pour que président Macky Sall ba a doon ki nga xam ne mooy tànn ay candidat bàyyi ñëpp bokk ñu am élection yu libre mu libéré xale yi bu ko defee démocratie Sénégal continuer euh, yoonam continuer gën a dëgër continuer gën a law Euh, vraiment loolu moo doon message bi nga xam ne bëggoon naa ko bokk ak yéen jërëjëf.